sëñ Yàllin Guèye nee na Cheikh Al Hadj na ko doom yéen ngi jëm ci jamono boo xam ni buy neex a dunde lay doon te naqadee dee waaw lu ko def mooy am na yu yomb yu amul woon tabarkal la boo seetee jamono naqadiwul ndax mbiib yéeg fecc yéeg yépp tey ni mu toll kenn xamul loolu neex na ci bakkan waaye boo koy tàggu neexul boo koy tàggu te xamuloo foo jëm neexul waaw waaw waaw ndax moom a kump la waaye rekk am na lu ko ëpp doole mooy ki nga sopp la nag waaye am na mooy ki nga sopp ki nga sopp sa yoon ca la ca des waaw ki nga sopp sa yoon ca la ca des waaw waaw daan na wax itam ni ni ko doom yéen ngi jëm ci jamono boo xam ni ndeysaan ñey waar nit ñe duñu sax fer ij ndeysaan wallaay ndeysaan bu ko yéen ngi jëm ci jamono boo xam ni ñey waar nit ñe duñu sax fer ij waaw ña fer ij ñépp dootuñu ñeme génn wallaay ndeysaan dem naa ci benn dëkk rek benn waaye nga fa di firi mimier rey ko rek a ci waaw muy ca Congo Congo Brazza woon waaw wallaay ndeysaan mujj na sonn sax ndax booy wax loo xamul da ngay mujj fatigué wallaay